dal leen a jàmm mbokki internet suñu gox tv nuyu nañ leen giale del si waate yéen nag ci suñu série famille sénégalaise épisode cinq ginnaaw nag bi nga xam ne soxna ba tóor nag daal dinay defaat ci njombe wu réy wi mu def rek ndax nag mooy fas yéene rek yàq diggante sëyu ngóone ak Lamine ndax nag moom ci loolu rek lay dox waaye nag mu mel ne goro ngóone la ci àndal muy yaayu Lamine di mère Soda ndax moom ñoom ñaar ñoo àndal li nga xam ne mooy dil bi fas yéene nag sosal ngóone rek nag daal di koy duural ne dafa am li nga xam ne moom mooy farate fekk ne nag ngóone mësta am am far bëggul ko dul Lamine waaye nag ku nekk xam na ne góor moom goor nga te nag lépp luñ la wax rek ci sa jabar bu fekkee nag nekkoo ak sa xel tuuti nag tey xalaat rek danga koy daal di gëm ndax goor ci boppam moo fragile ci li nga xam mooy sa jabar dafa am far loolu mu amul benn boo xam ne rek mën nga koo négocier wala nga mën koo muñ nag ndax fi mu nekk nii jigéen ñi rek ñooy bett seen jëkkër yi ñuy doxaan ñuy bàyyi noonu nag waaye nag góor ñi presque buñ la fekkee rek ak beneen góor bu fekkee seqoo leen dara sax seen a moom moo fiir ba ba waru nag sukkandiku ci loolu ngir rek yàq li nga xam ne moom mooy sëyu Ngoné ak Lamine ndax nag dafa bëgg rek utal ko benn far xale bu góor bi nag indi na ko seen koñ la dëkk te xam nga ko bu baax te ngoone Ngoné xam na ko bu baax te Ngoné nag kooku la lijjanti waaye nag heureusement fi ko yàlla nar a mooy Mariétou Lo nag daf gis bi nga xam ne ñoom ñaar ñi ngi dugg si kër gi pour mën a teg dil boobu muy moom ki nga xam ne moom mooy batoor bi muy wool Lamine ci kër gi pour mën koo wax léegi nag Mariétou bi mu ko gisee nag ci la xelam daal di ñaaw rek mu daal di xam ne nag batoor doxu jàmm ndax nag batoor du ma a def jàmm te chaque jour tamit nag ay problème rek lay dugg ci dugal boppam ak di ci dugal nit ñi ba tax na nag maritu daal di jaaxle lool ci la dem nag wo ki nga xam ne moom mooy sagar waaye nag bi xoolee sagar nag sagar ku xool xam nga ne nag maritu am na lu xew waaye ci bëri suturaam bi nag nanguwut a kenn dara waaye nag ci fin bi nag la leen mujjee wax dëgg bi ne leen soxna Batoor nag gis naa ko mu woo fi Lamine ci lañ woowee Ngoné nag pour wax ak moom ne ko rek nag na def très attention ndax ki nga xam ne moom mooy maritu nag mi ngi koy waaje ki nga xam ne moom mooy soxna ngeen baal ma mi ngi koy waajal te ku nekk xam na ne nag Batoor moom lu mu tànte lu nekk rek du mooy waaye nag Batoor yaakaar naa fi mu nekk nii tamit nag ay mbiram mën na bañ a jàll ndax comme que nag teel nañoo wax ngoone nag mu teel a jël matukaayam Batoor war na ko mën a bañ a bett waaye nag li may laaj mooy mooy Batoor ki nga xam ne moom mooy ngoone bu demee dafa war a waxtaan ak jëkkëram wala dafa war a noppi rek ba jëkkëram wax ko ci mbir mi dara ndax comme li ko kii wax rek nee na ko bul amuma ak Lamine benn nëbboo ma ne ko nëbboo am na ba pare ndax daf laa tàggu ne day dem ambassade ba pare ñëw fi ci soxna Batoor suur kon nag yaakaar naa ne war ngeen a am nëbboo boo demee rek toogal nga noppi jàpp si boobu waaye nag xalaat ne est tamit bu fekkee dafa dem toog waxut ak jëkkëram dara tamit du gëm nga xam ne moom la ko Batoor wax Ngoné dafa waroon dem rek wax ak jëkkëram ngir nag jëkkëram mën a a xam ne lii rek dil la ba mu comprendre kon dee topp rek ci suñu chaîne bi nag di suñu gox TV di leen abonné di di bës ko notification yi rek loolu moo ñu sawarloo ci leen mën di defal ay vidéo jërë ngeen jëf